ginnaaw liggéey bu am solo bi nga xam ne ñu ngi koy def ci kër yi ak ci bërëbu fajukaay yi ñi nga xam ne ñoom ñooy bàjjenu gox yi ñu ngi xeex lépp lu jëm ci wàllu sëy yu yi ak ñi nga xam ne dañuy liggéeyloo tout temps yi li ñu naan travail des enfants waaye nag bëgg nañu ñoom ci seen jëmmi bopp ñu daal di leen a gestu. na jàppale bàjjen gox mu jàppale ko pour ne aussi déjà bàjjen gox yi am ñu salaire dañoo ne dañuy nekk ay volontaire di liggéey pour la communauté ñun communauté bi ñu soxal moo waa xam nga président de la république euh, Macky Sall ne woon na dinañu motiver mais ku ne dama lay may doo ko bousculer donc ba tey ñu ngi xaar ñu ngi raxas suñu loxo rek di xaar. jafe-jafe ñuy am aussi euh, mooy de déplacement bi. ndax fu mu ne liggéey bi bëgg nañ dem fu gën a sore. ne woon nañ fii euh, dinañ dugal bàjjen gox ci bourse familiale. nee nañ aussi dinañ ko dugal si ci CMU maanaam soo feebaree nga mën a fajo mais. xam naa dina ñëw à l'avenir mais gisaguma mais am nañu ay jafe-jafe yoo xam ne wax dëgg suñu jàppale aussi dina mën def bàjjen aussi am ñu siège am ñu fu ñu fu am na ay digg yoo xam ne nguur gi defoon na ko boobu ak léegi ni si France daal di xëddee bëgg nañu nag ñu gestu leen daal di leen a jàppale ci Tambacounda am na lu toll ci fukk ak juróom-ñaari nit yoo xam ne sargal nañ leen bàjjenu gox yi nee nañu ñoom mosuñu dañ ci di leen jàppale bokk na ci ki nga xam ne moom mooy Khady Samanké madame Kaba waaye itam ba tey bokk na ci Bounama Kanté nekk ci Tambacounda 된다.